الحمد لله على نعمه الجليلة وآلائه العميمة وهباته الوافرة والسلامان التامان الكاملان الدائمان على أكمل خلقه وأكرم رسله وأشرف عباده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 moo xam ña koy leerloo ca selleri prison ya la wala ña koy leerloo ca hôpital ya la wala ña koy leerloo ca caawa gala la wala ña koy leerloo ca marse ya la wala ña koy leerloo ca euh, kaaru njaganjaay yaak tataay yaak Dakar dem dikk yi Dakar dem dik xamna lañ ko tuddee won xawma ñi ngi dem nak xawma ñi ngi dikam deet ñi ngi boole dik ak demam deet léeg nit nema man kat safooru dem dik la mané ko mbaa yéen ngi dem ak dik léeg-léeg ngi dem ta duñ dik nak léeg-léeg timi ngi dik ta duñ dem su ko kon ku mu ci ni fu ko sama nuyo bi fekk maa ngi ko koy nuyo di ko jox sama juróomi baaraami maanaa yi di ko ñaan mu nangul ñu ko moom tamit ci juróomi baana ci juróomi Euh, baaraami maanaam yi di ko ñaan yàlla defal ñu juróomi xéewalam yi defal ñu xéewalak ak jàmm ndax ku yàlla defal jàmm nga mucc ci jàmmaarloo yàlla defal ñu xéewal sutura bu mu ñori mukk malaanam sutura mi mu ñu muuree ku yàlla suturaal kenn du la xamal dara waaye yàlla boole defal ñu yërmandeem ji ju yaatu ju lëw ja waaye defal ñu barke ci suñu yëngatu yi ak suñu dal yi defal ñu xéewal guy sotteeku ba buñ taxawee jot buñ toogee jot buñ tëddee jot juróom yi ma dëxañ ci nuyoo bi nuyoo ko kumu ci ñu ma lim ak ñu ma limutoon maa ngi ñaan yàlla defal ko ko te defal ñu ko defal ko mboolem jullit ñi ah, damay ñëwaat rekk nag sof ak yow ci li ma la junjoon démb ci waxtu wi te waxoon naa la ab sëy su fekkee dafa yàqoo ca wàllu pas-pas ba moom dañ koy firi njëkk xaraf ak gannaaw biñ xarafee mooy sëy ba yàqu na rek Tak nañ sey ba ta amul khalifa tak nañ sey ba ci khalifa go xamé na ni gi wara maye duhut mom mom dal kon sey ba yàqu mo kam xam xaraf nañ dañ koy tas ndaw sa dem lablu ji su fekkee xarafaguñ dañ koy tas ñu takkaat ko takk gu bes go xamne ne ka ko wara mana maye moy taxaw maye ko waye bepp sey bo xamne dafa yakko ci walu can nga su ma ne wàllu can nga lañ canee mo baxut lo canee ndaw si nga ne sangara loko ko nga ne mbaam xuux loo gu ndaw wala sama mu nag wala gétt gu ñu seeti te feeñagut loo ko canee jën yi nekk ci biir géej gi wala or bi mooy lépp loo xam ne dañu hóoluhut ak muccam wala ñu hóoluhut ak amam nga bëgg koo canee soxna si wala dañ koo can waaye fekk can nga matut loolu daal su fekkee ne sëy xarafaguñu dañ koy tas defaraat ko su fekkee ne nag xaraf nañu dañuy rotal charta ba ca la ñu waxoon joyantiwaat ko juppantiwaat ko ba mu dëppoog lislaam loo koy ca ne alal ju alalu ju lislaam nanguwut ne la baal loola comme xaraf ngeen da nga dem seeti alal wutal ñeenti junne wala fukki junne wala fanweeri junne jox ko ko loo waxoon nga koy cenee mu ne sama nag wi réer seeti bu ñëwee moom laa koy cenee ñu ne loolu hóorut demal nga yëkkati juróom fukki junne wala nag yu fi nekk nga jox ko ko demeet su ma waxee loolu nga déggee ci li ma waxut kon bépp sëy bu yàqoo ca wàllu can nga xarafaguñu nañ ko tas xaraf nañu nañu rootal charte ba ca lañu waxee woon su ko defee te ñu wëyal sëy ba jooyanti ko ba mu tegu ci yoon woo xam ne wu jub la comme ni ñuy jooyantee ku takk soxna indi ay wax yoo xam ne dafa wuuteeg li tax ñu jox la ko may nañ la soxna si bañ la ko mayee nga ne ay man de maanaam duma ko dundal loolu du waxee dara dañ lay wax demal nga dundal soxna si may nañ la soxna si nga ne mankat kat tabaarakallaahu duma ànd ak moom wala guddi rek lay doon wala bëccëg rek dañ lay wax ne loolu du waxi dara après joyanti wax jooja jooyanti tamit jëf ju dëng jooja ba mu tegu ci yoon su ko defee tamit nag sëy boo xam ne tamit dañ koo takk maanaam te fekk mu nekk sëy bu ñu nëbbu amul seede takk sëy bi rek kenn seede wut ko ñaareel foo ko déggee borom kuy ñaareel ku ragal mu siiw la kaayu ma takk rek waaye nag bu ko kenn yëg kenn seede wut ko nañ ko nëbbu su boobaa ah, booba sëy tamit nag su fekkee ne eh, walillaahi alhamdu wa yàgg yàggagut dañ koy tas su fekkee yàgg na nag dañ koy siiwal te ñu bàyyi ko ca noona moom lay moom la moom moo taxoon Omar ibnu Xataab eh, boo demee ci Muwatta ci hadis boo xam ne abi Zubayr mag yi moo ko andi mu ne Omar maanaam andi loon nañ ko sëy boo xam ne kenn seedewut ko waaye bañ ko andilee Omar dégg nga euh, maanaam da koo joyantiwaatum sëy ba beneen riwaay bu mu ne indiloon nañ sëy boo xam ne Omar genn góor a ko seede ak benn jigéen Omar ne lii nikaaxu sirri la sëyëb nëbbu la laa ujjisuwoo man duma ko wéyal kon seede ga dañoo bëgg mu nekk ñaari góor ñoo xam ne góor lañ góor lañ mësoor nañu ñooña jëm kaw ñoo koy mën a seede waaye nag su fekkee euh, seede ka ay jigéen la matul ndax yonentu fa waxoon ne laa tajoosu shahaadatu nisaayi fil xuduudi wala fi nikaaxi wala fi talaaqi loolu moo nekk ci xaddis bi mu ne jigéen matul seede ci géttéen jigéen matul seede ci sëy jigéen matul seede tamit ci fase boo jëlee Abu Xanifa nag moom dafa ne sab sëy daal takk ko ñaari jigéen ak benn góor mat na ca seede moom loolu la gëm su ko defee nag waaye nañ dëppoo dëppoo nañ daal ne ñoom ñëpp ci boroom ngir yi d'accord nañ ne benn jigéen ak benn góor matul seede moo waraloon ci mu waxta bi ñu indilee Omar ibnul Xataab sëy boo xamee na nii euh, kenn ña ko génn góore ko seede ak benn jigéen mu ne hada nikaahu sirri laa ujiisuhu man Omar duma ko wóyal euh, nikaahu sirri boobu tamit nag te mooy sëy bu ñu nëbbu nga xam ne dafa niroo euh, xaw naa niroog moom tamit nikaahu tafwid te mooy sëyab jooyal la ko fu fuqaaw yi firee mooy maanaam kilifa ga mooy kilifa ga moo wax maanaam ndaw si moo wax jëkkër gi ne ko rek danaa la may eh, jabar mu ne ko d'accord naa nga may ma waaye nag waxu lim koy cenee bañ mën a xam loola mooy lan su ko defee kon nag dañoo bëgg a xam cen nga lan la ndax canu kem la can nga nangam la bañ xam ba mu leer nañ loola ñu xam puñu paye fuñu mëna sukkandiko a sukkandiku dégg de su ko defee nak kon nak euh, ma ma li ngi tuddee nak jigen ñu né jigen mom ci bopam mom bu bëggé ko ko mëna naa labatlu jigen ñew mu mu labatlu goor def ak mom nikahu tafwid tak ma rek ta nga can ma waxut ko lim koy cane loolu ñu né jigen gi man na wayé na bu féké kilifa ga la fokku da fay jëkër ji lim koy cene ak can ga li muy wara mëna doon ba loola leer nañ ñi euh, su ko defee nak kon dañ ko wara dogal ak am dégg nga su ko defee kon nak euh, sa tafwita ngok waxna la ko nikahu sirri ngok ci fuqaa yi ne nañ bu yagut dañ ko tass bu yàggee nañ ko bàyyi te ñu siiwal ko yàgg gën ak mooy sëy ba am na ñaari at ñetti at ñeenti at juróomi at jëm kaw loola moom duñ ko mën a tasati dañ koy siiwal rekk ñépp xam loola mu jeex te loolu day xam léeg-léeg ci nit ñi kon nag euh, maanaam sëy yaa ngoog la ci waxoon ak maanaam yeete yi nga xam ne làmboo na ko ba mel ni tey koo xam ne dafa takk soxna indéeg moom sarta boo xam ne dafay wuuteeg lañ jublu ca sëy ba dañ koy neenal rek waaye du lu ñuy wëyal takk soxna ñuy wax nga ne duma ko dundal du waxi dara demal nga dundal si soxna si duma ko woddu duma ko jox aye duma joteek moom du ma ko dëkkal yëpp waxi ku daanu saret dong lañ koy jàppee dañuy rootal sarta yooya te terewut sëy ba wér mu continuer su ko defee kon nag e, mu mel ni nag e, sëy yaa ak takk ga sëy yaa ngoog ak sarta yi ñeenti ponk yi ko téye woon bi ci njëkk doon kilifa waxoon naa la ko ci fanki woowu na bi isni ahlihinna ñaareel ba doon cam ci wa atu nisa sadaqatihinna nihlatan ñetteel bi di seede wa ashhidu dhaway adlin minkum ñeenteel ba nag timit moom waxoon naa la ko mooy ci mafhumul quran lañ déggee te mooy baat buy tekki ne maa ngi ñaan ak baat buy tekki ne may nañ la li nga doon ñaan nga ne nangu naa ko muy tekki tamit ak sax yii daal boo amee rek maanaam sëy ba fasuwu na mu des nag kenn ku ci nekk ay àq yoo xam ne yaa ngi ko ameel maanaam sa morom su boobaa juróom-ñaari àq jëkkër ji dana ko yoreel jabar ji jabar ji yoreel ko jëkkër ji juróom-ñaari àq ya mooy boo jëlee xarafu uskun anta ji yàlla waxoon aadama ca am sa loolu mooy àqi jëkkër ci jabar di àqi jabar ci jëkkëram boo ko wëlbatee bi ki njëkk mooy ku yor soxna danga ko war a dëkkoo moom la jiital mooy xam sa gi di wat u ndax soxna yi tool lañu moom la alquran ne nisaaukum xarsun lakum fatu xarsakum anni shi'tum moo tax bu lépp matee te soxna sa dëkkoo gi matut manta muñ dañ koy tas kon nag dëkkoo gi moo jiitu ñaareelu àq bi ku yor soxna da koy dëkkal mooy sukkunaa moom la alquran ne askinuhunna min haythu sakantum dëkkal leen soxna yi fi ngeen dëkk rek bu sa doole toll rek nga dëkkal ko ca dëkkuwaay nag du la wàcc ba ba ngay deexee ba am ci biir suuf ñeenti weer ak fukki fan muy ténj ga ci la lay door a wàcc yow comme amoon nga kër wala nga teewaloon ab luyaas beneen bi ci tegu nag mooy maanaam kiswatu mooy woddu moom la alquran ne woon wa alal mawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna wa kiswatuhunna bil maaruf kooka tamit sarta ya mooy na yëre ya jot yaatu fatt am ci yu nangu sedd am yu nangu tàngoor jeex na moom nag du la wàcc feek ba ngay dee boo dee rek wàcc na la a beneen bi mooy nafaqatu mooy dundul ku am soxna yaa ko war dundal moom la alquran ne lu yunfiq du saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah dundal gi na mi ngi ho kiam sa dundu sa man-man bu lek ya sa kartan rek su ko defé kon nak manam loolu ya ko war defal soxna si benen bi ah, bi ci tegu moy de ko laye bir moy xam sa gi an nasiha ah benen bi ci tegu timit nak manam de ko teral ndax soxna yi tamit jëkkër ju baax góor gu baax moo leen di teral mooy taagi moom la yonent bi ne maa akramahunna illa karimun wa maa ahanahunna illa laimun beneen bi ci tegu nag mooy bu feebaree nga faj ko juróom-ñaar yi daal ku ko defal sa soxna wàccoo nga ak moom bu yowbal xiyaamee boo ko gisee xawma kuy daw waaye yow doo daw boo doo bokk ci yow ma yafirul maru min wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi do ca bok mom timin nak mu war la delo jurom ñaar ñi ya ko wara dekko amul droit tere la sa bop jigen gi gëna bon ci jigen ñi moy jigen guy tere bopam jëkërëm bu ko méré rek wan ko gannaaw koka yonuntu neena buy beccëk malaaka yi dañ koy yendu bu ba jant bi sox buy guddi dañ koy fanaanu rebu bu set ñaar barke nag du luus mooy soxna si yàlla na gàtt fan soxna si yàlla nga ko sadd feebar bu dul wérati soxna si tàngal xolob jëkkëram yàlla bu xolam seddati ci boppam ci njabootam demeet ñaan ak malaaka du ba dara waaye tamit dafay nangu moo tax bari na fi soxna yoo xam ne ñaan ak malaaka dong moo leen topp kon bépp jigéen buy tere sa borom kër sa bopp foofa la mbon yem jigéen bonam lu mu bari bari feek tereegut boppam jëkkëram rek mbonam nga des na kon loolu nañ ci bàyyi xel mooy àq bi njëkk ci boo xam ne yow amel nga ko sa borom kër bi amel ga tax sax amoo droit woor wooru gàtta nga amoo droit di fanaanoo guddi gi naa fi lay jëm bër set wala fajar gu xarta fekk moom mi la soxla yooyu yëpp sharia dafa la koy tere boo ko bëggee def ci ndigalam rekk kon xam nga ne kon charia am na doole ci wàllu woowa ak ci wàllu yëpp tamit beneen bi moo la war a dëkkal amuloo droit génn kër gi ci lu duhul ndigalam soo ko génnee ci lu duhul ndigalam malaaka yi dañ lay liim ak pepp suuf yeeg xobi garab yi ngay romb feeg ba ngay ñëwee kon jigéen ñi de leen tàggoo ba bañ a yëglu léegi nag yëglu rek kay rek tagalu pentir xar-xaram gi tagal ngay bëgg daal asamaan foo jëm mu ne fii rek xam nga ne kooku boo compliqué doo dem danaa dem rek say ba tas ñi tuumaal la mënta yore jabar fekk soxna yu bari dañoo naqaree yore kon bu leen di tàggoo bu leen di yëglu waaye dee leen tàggu buñ leen bàyyee ngeen dem te toog fi la sa jëkkër toog loo waxuma la yow yóbbu la aljana waaye sa baay bi la dugal ci sëy bi sax mën na ko yóbbu aljana jamono ñu ne xare yi ñu ne jamono yonent bi benn góor dafa dem ca xare bàyyi boroom këram bàyyi soxnaam ca étage ba bàyyi ma ngi dëkk ci suuf moom boroom kër gi waaye ndeysaanam yaay ja feebar na walla bàyyi ja mu dem nag ñu ne ko kaay seet si ko mu ne leen sama jëkkër doxul ma autorisation ñu ne ko waaw da ngay loo mën a mën a sëy demal nga seeti sa baay balaa dee mu jigi ñëw ne yaa doon jaay mën a sëy sa baay dee na nag mu ne boo yeboon nañ ko suul waaye du ma génn kër gi sama jëkkër joxul ma woon ndigal loolu la ne ba ñu sang baaja ja sàng ko benn waay joo xam ne dafa def lawraatam rek sëgg gam-gam le rek gis baay jay daagu ci tooli aljana ya mu ne ko saa waay farlu woowoon ñi di xam naa la dañoo doon doxal ak ndaw fu ne jaar nañ fa maag yow yow lu la war a dugal aljana mérité wuloo ko de bu la yàlla te ci sa jëf mu ne ko dara mayut ma ko doom ju baax doom ju baax laa am jigéen dugal ko ci néegu sëy mu déggal borom këram borom këram dem xare waaye taxul ma feebar mu bañ maa seet si ngir ne amul autorisation ma dee mu bañ maa seet si ngir amul autorisation loola ca la ma yàlla yërëmee ba dugal ma aljana kon dama boo yemee ci sa néegab sëy yow jigéen gi may déglu bala ngaa dem tàggoo buñ la bàyyiwut nga toog waxuma la yow ci sa bopp waaye sax sa waajur ya la dugal ca buum ak ba mën nga leen a yóbbuwaale aljana kon loolu jar naa bàyyi xel jigéen ñi léegi nag yëglu rekk ak ñetti matu ko yi matta toggal xiifut matta fóotal tilimut matta tàggoo fi ma jëm soriwut fii rekk kon benn jigéen amul droit di màggali te jëkkëram bàyyiwul ko benn jigéen amul droit di ziyaara ji te jëkkëram bàyyiwul ko benn droit benn jigéen amul droit di gàmmu ji te jëkkëram bàyyiwul ko waxuma la dem ca daayira yaag la ca aju waxuma la nag yeneen xewi àdduna yaag ya ca kenn xamut waxuma la nag mitin mitin yaag ya ca kenn xamut yooyu yëpp boo ca demee ak yeneen xew-xew yeeg seeti sama baay ak sama yaay ak te sa jëkkër bàyyiwut la pepp suuf ya ngay romb xobi garab ya ngay ron yëpp ma lay rëbb loolu nag kon jar naa bàyyi xel moo taxoon gaa yi baax yi maanaam meññi gaa yu baax yi dañoo daju woon ca seen néegu sëy ya fépp koo xamee dañ laa teg ci sa néegab sëy nga nangu faa daju wallaahi bu nekkee lu wér ci yow di muñ di sëy sëy bu rafet yàlla dina la fa dëjal ay doom yu baax yu barke yu fees àdduna mag ñu baax ñi tey yàlla dëjal leen doom yu baax yi yëpp dañoo dëju woon ci seen néegab sëy ba waaye sa benn tànk baa ngi ci néeg bi sa benn tànk baa ngi ci mbedd mi doo am lu baax moo waral maam jaara bu soog dëjoom nga ba nangu woon a toog ndeysaanam sàkket waag ba ko ma ma maanaam maam Mor Anta Sali téelewoo moom mu foog ne bàyyi na mu fanaan fa yàlla jeey taw ak dënnu ba ba muy ñëw di wàcc ci fajar gi ne ko jaara looy def fii mu ne ko am ndigalal téye te amaguma ndigalal bàyyi rek yaa ma waxoon téel te waxuguma bàyyi moo tax ma téye ko mu ne ko jaara yal na la yàlla may doom ju barke jaara dogu naa ne yàlla dina la may doom ju barke waaye yàlla may na ko doom ju barke joo xam ne ñépp njéegu ngéejoowu nañ jur ko waaye yàlla jagleel ko soxna su tedd soosa nangu woon na dëju ca néeg néegu boroom këram di mamor anta sele ci sanc bu yaatu bele sanc bu tumuranke bele ci proxan mu nekk ab àll boo xamee ne ni àllab kerté ndeng la waye mam jaara seetut ci ne ndox amu fi mam jaara seetut fi ne courant amu fi setul ne yoon amu fi waye jigen ñu bari fo len dëj bo len defon sax tay dak bi naqar nga ne na tax xawa wañ yoon sokon wala na wañ yoon keur masar wala kawlax mo ne fi all bi luma fi def fii amul courant amul ndox foo ko teg male ba bañ koy yàlla jox ismaila fu mu nekkoon ca xàll bële ca màkkata nangu faa dëju di fa xaar ibrahima gis nga ko mook doomam ja ismaila ba gis nga ismaila mujj na di yonantub dëkk ba mujj na tamit sët ba soqeekoo ci moom di yonantub àdduna bi yépp di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola lépp ma ngay soqeekoo ca barkeb soxna sa nangoon a toog fuko jëkëram na nangoona toogaloo ba mu jëlé ci lam ci jëlé ku tuddu jigen ñu bax ñu soxna sayyidatuna khadijatu yaayu alhaji abdallahi ñas khadijatu cham khadijatu timit soxna su sayyiduna muhammad Sallallahu alaihi wasallam ku leen tuddu mam mam mor anta sali waxna la ko fam jaara mam jaara soxna fa wàdd fa jaar usman ak fa mu jaar ak jaamu yalla gaak na jakka jakka mana ñaan lu gaak ci cheikh omar fouti yu gaak fa wajur ya jaaron ba mu dëgal ko ne ko dana am dom ju fess haduna waye kon lo lepp manam sey bu baax mo la ko amal mam astu jank yaayu cheikh al islam Haji ibrahim sey bu rafet ba lola ko may tay mo am dom ju dayni cheikh al islam Haji ibrahim waye timit manam soxna aminatu cham sey bu rafet ba déggal borom kërëm ga ko may am dom ju mam mam khalifa kon sey amul tirisé lo ca jëmbat mom nga cey gop dara nga ca mënu léeg-léeg nga ami dom ta emuñu situation da nga am dom ji muy sa taw nga don sey sa sa bi di sey sa sañ-sañ bi dom ja juddu tekki di lol dara nga ca mënu nga dema dem chat ma ñëw ku ci wërsëg tekki ci lépp lu ko waral ki da doon sëyee fale ak ni don sey fi du benn moo tax léeg benn bi siti maanaam uteewu sëy nii dana dem ba uteewu doomi nii euh, loola yàgg naa ko nekkali ca sëñ daara ba ndeysaanam mën a jàng jeexal téere yi lool ber daara man ta am kenn presque dem rakkam ja ber daara lu yàggu daara ja fees fu ne mu dem fa loola nag jaaxal ko mu dem laaj ko yaay ji mu ne ko tey de li may laaj man dong maa la ci mën a firi yow de da ngaa jodd ki da ngaa jodd ki jamono joo xam ne booba maa ngi sama digg taar rafet lool faalihuma sa bàyyi mu ne benn ma ne ko fukk loola ci nga sosu moo waral sa mbir dëgër de sa rakk ji bi muy sosu fekk na sama taar wat na ma gannaaw na nagul sa baay lépp bu ma woowoon ci mbedd mi ne nañ sëy sax ma ànd ak moom ba ngeen lu ma ko dara moo waral kon ci kii ci la sosu moo tax fam la rawee dafa sori ba péncam yàlla doo ko jot yaa ko mag waaye moo la mag loolu la yàlla dogal dara nga ci mënu kon sëy amul tirise loo ca góobee loo ca jëmbat moom nga cay góob ci sa doom yi ci sa doom ji lépp rek loolu moo cay feeñ kon loolu jar a bàyyi xel la kon nag soxna yi nañ bàyyi sëy naa ko ba génn ca foo foo ko teg foo maanaam wala sëy boo xam ne waa ngi koo gën a kooku xay delloo naa ko kooku kay delloo naa ko waajuram yi bu yàgg su boobaa tamit yow delloo nañ la say waajur di foo ko teg di sëy ngi wax nga naan tabax ba mu kawe ca kaw a kaw boo dëkkee ca kaw te sa jikko dëkk ci suuf foo foo jëm su boba timi sa jikko ju suufé jogé dana waccé sa jëmmu jojja nek ci kaw bam fekk la ci bir suuf ba nga nek ci bir so nga nek ci kaw su do ci man dara kon nak nañu rafetal jikko yi bayyi xel bu baax ci sey rafetal ko lol ta diko jubal amna solo lol gaa yu baax yi jur gaa yu baax yi deug deug lañ am dañ ko jënd waye te day nelaw sëyee ni la nexé bëgg amé la nex dédét man ta mukk nak kon nak di len tarbiwu seen jëkër yi di leen toroxlul di leen topp bañ a topp xelaatu tubaab yi di woote ay parité sa jëkkër ak sa jabar yéen a tolloo fifty fifty ma ne xanaa fifty fifteen la loola lépp dañ leen di tardeel jigéen ak góor mënuñoo em loolu alquran waxoon na ko waxoon naa ci lu bari xam naa boo ma toppee suba sax du ñàkk loolu mooy nekk suñ première bopp darsu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum ورحمة الله وبركاته